Heavyweights.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 nag lab xale bu ñu naan aji sar ati toll ci ñaar fukk tuumaal Ousmane Sonko ne moo ko violé nga ni ma pëtalaw ma ne xale bi di aji ne Ousmane Sonko moo ko violé te ne def na ko ko ay yooni yoon teg ci di ko menacé de mort ne ma ne gone gi Sonko daf ko doon menacé ak ay fetal laa wax bi loolu amee xale bi di Adji Sarr déposé na plaintam ca gendarmerie bu Colobane tax ba gendarmerie convoqué ku ñu naan Ousmane Sonko naka noonu nag bi coow li baree ci kawam Ousmane Sonko jàkkaarloo nag sénégalais yi wax waaw waaw nee nag salon de massage boobu moom ci boppam dafa doon dem <laughs> waaye nag li ko doon yóbbu ci salon de massage boobu di Sweet Beauty du ay caaxaan waaw waaw loolu mën a ne li ko fa doon yóbbu mooy ab jàngoro bu mu amoon yàgg ko sooxaale depuis ba muy ndaw looloo taxoon mu dan fa dem di fa maasewu te jàngoroom jooju yàgg na ko faj ci ay kinésithérapeute waaye ne bi mu demee ba amatul xaalis bu mu fajoo ci kinésithérapeute ci la demee ci salon de massage boobu di Sweet Beauty di fa fajoo ndax ne salon de massage boobu am na agrément kon war na faa mën a dem di faju waaw bu jaaree yoon nag ci salon de massage boobu nag la ko xale bi di aji sar tuumaalee li ñu naan wiyol ba tax nag ci réew mi am ñu naan Ousmane Sonko waru fa woon a dem maanaam loo foo wuti woon ni ko woykat bi waxe am ñeneen ñu ne war na faa dem ndax réew mi kenn interdit wu fi massage te it nga xam na ni mooy massage dafa bokk ci ponki wér gi yaram kon bu ko neexee mu dem fa faju waaw waaw loolu dëgg la léegi nag kay laaj bi mooy aji saar mi tuumaal Ousmane Sonko viol ay waay mim réew te ne def na ko ko ay yooni yoon teg ci di ko menacé de fital li jaaxal ñi nag mooy aji saar magum jëmm la ñaar fukki at nekk ci ab salon de massage boo xam ni am na ñu fa dëkk ñu dëkkee la violé te coow jibul cin bënnul fëqul jaaxal na nit de leneen di def nit ñi tamit kaa mooy ku ñuy violé waaw kay xanaa di nga yuuxu mbaa nga jéem a résister waaye cib salon boo xam ni borom këru salon bi nee na bis bi ya di am ma nga fa woon te déggul benn coow lu yëngu picc sabul pus kaso yëngul ah! am na ñoo xam ne tamit ñu ngi laaj waaw nit dinañ ko violé benn yoon ñaar ba ñet ki ko violé envoyé ko message ne ko maa ngi ñëwaat violé la mu toog xaar ko waa ji ñëw violé ko ba noppi dal di dem yoonam ah yomb na ak leneen li ci jaaxalit nit ñi mooy seede yi ci am maanaam. xale bi kan moo ko doon woo naan ko man niw génn na génnul xale bi ba mu fa jógee kaat kaat bi ko fa jëlee dañu ci tudd ku ñu naan Sidi Ahmed mbay di ab jarbaatu leader Benno Bokk Yaakaar bu mag loolu it tey na xel moo tax mbir mi kii di Ousmane Sonko moom daf ko yóbbu ci terrain politique bi daldi ni li xew ab kompolo bu ñu teg ci kaam tudd ci njiitu réew mi tax ba Ousmane Sonko ne du seetaan ñu sakk sacrifié ko comme nuñ ko defee wa ak Karim Wade ak Khalifa Sall dal di ay partisans ak ay sympathisants ñu wàcc defante ko nguur gi gannaaw woote boobu nag dimanche altine ci fajar waa Pastef yi wuy si nañ ci woote bi dal di ñëw assiéger buntu seen leader nekk koy jël si ci seen kaw lay jaar mujj ñëw def prétexte ngir disperser leen ne dañoo nekk ci pan pandémie tey rassemblement dañ koy bañ yëf yi mujj dégénéré lacrymogène takk cité kër góor gi tàng jëpp altercation daal di am ci diggante way takk der yi ak ña fa nekkoon am ci ay blessé yu bari ci ñaari côté yépp ay oto yu ñu lakk ay kër yu ñu caxat-caxate ay Auchan ak i cantine Orange ma ne Ndakaaru njaay jax tàng jàpp bis booba ya fi jóge cité kër góor dal tas ci ndakaaru ba joox biir université utali Louga ba ca Casamance gannaaw ba yàqu-yàqu yooyu yëpp amee nag waa kër Ousmane Sonko itamit ne yàqu-yàqu yi am ñi leen di wut dañ cee bëgg a sukkandiku ngir bëgg a taxewaat seen leader ne dafa def appel à l'insurrection ak li ñu naan trouble à l'ordre public ba tax ñu ne lépp li fa xew convocation bi ñu convoqué seen leader moo ko indi ndax ñi ko woo xam nañ ne ab député dafa am immunité parlementaire kon buñ ko wee ba altercation am ay lakk am ci ñooñit war nañ leen a mbir mi nag fi mu toll yéeme na yenn sénégalais yi nee ñu ci diggante ñaari sénégalais la Ousmane Sonko ak Adji Sarr ña ca des ne mbir mi kompolo yi rax na ci moo tax ma ne mbir mi kompolo la wala du kompolo lépp nag war naa mën a leere ci yoon xanaa toog di xaar fu wànnent di mu jekki gëtam waaye nag li gën a doy waar ci mbir mi mooy ak fi àddina bi tol ak fi senegal tol ci contexte Covid 19 saa bu ñu xëyee ñu ñuy tàggaay bakkan réew mi débat bi di tourner autour de yaama maaseek yaama wiyole <laughs> moo tax ma ne sunum réew mi feebar dëgg-dëgg la def waaye nag ak lu ci mënti am mooy na yoon def liggéeyam ak responsabilité mu leer nañ benn par parloo bañ cee am mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi yeneen xibaaru buzz.